ba tey ngi ci xalil bi ak ci sëy ci sëy da waxoon démb ne da waxoon démb ne koo xam ne dafa takk ñaari jigéen te nga xam ne surtout kenn daa ji dagan na bu faatoo nag moom jëkkër ji ndax xamuñ ka jiitu kon doona moo war bu doona ba noppi te ku nekk dana am gën wàllu can wala ku li nisfu sadaqin léegi nag bu dee nga xam ne juróomi jabar la te xamuñ juróomeel bi dama fee ñaar la waxoon fii juróom la wax tey wala ku nekk dana doon dana am gën wàllu gën wàllu canam ga dañuy wax ni almatu ko dukhul almatu ko dukhul lo tax muy nag niki mu tak juromi jigen juromi pas-pas yu tofalante wala ñent ci par benn pas-pas bi ci pas-pasu boppam te xamul juromel ba jëkkër ji dal di faatu ñak muy xalaf la garabu xale fee sax dégg wax bi wante bu dee nga xam ne suy caat kenn ca ñoom ñaar kon di am ñeenti can ñu ko séddoo ci kem seen can ya bu fekkee dafa séy ñépp nag day nekk juróom lay doon juróom lay doon moo tax mu ne تان لم تهلم الصعب قمزته قمي في قمي في الجروم له جروم الب قمي في الجروم الب كون ينتي دا نيو دونو ينتي ينتي ينتي تير لا نيو جوخي نيو دوك نيب دا خم جروم الب موتاخ لا لو تاخ لا خم جروم الب جروم الا داكورو الا داكو جرومي جبار داكورو كون خم جروم الب نك فو لو بروبليم بي نك لو كان لم تهلم تهلم تهلم القمزته dégg nga ko bi nee na mel da nga ko laaj ne ko waaw léegi nag ku takk jigéen parce que façon bay noonu muy bay noonu bay bay noonu suxaa xëy takkaata ci war ndax dagan na mu takk mbokkam mu ne waxalatul oxtu dagan na takk mbokk ba noonu ci saabiqati façon bàyyen ci ka jiitoon dagan na dégg nga da ko takkoon fekk fasam bàyyin wala du fasam bàyyin fay la waaye da ba jeex na kon bu ko neexee dem takki mbokkam mu ne aw sawaali milkin wala moom teefu jéebéer mu dëñ ba yàq moo xam ci goreel la dëñee wala mel noonu kon daga na mu dem jënd mbokkam moom ko mu moo tax wa in li ajli du goreel mu jëm dikk sax nag aw kitaab yi wala ko aw kitaabatin kay aw inkaahin wala maye ko keneen inkaahin ka jiitu lay may keneen gannaaw buñ ko laabloo waaye nag may goo xam ne yaxillu dana daganal almatul te kuñ fete woon fete mbat kon dagana mu takk mbokkam ba dégg nga bi mu nekk passeport mooy lan la nekk passeport bu wér a wér boo xam ne bu war la bu war la moo tax mu ne kon aw inkaahin yaxillu dina daganal almaftatu te kuñ façon façon bat aw asirin wala kuñ jàppoon ku njëkk la lañ jàpp tëj ko ràpp aw ibaqin wala dafa dàngaang dem ka woon dafa dem aw ibaqi iyaasin dang boo xam ne xadd nañ ca dina ñëwaat aw bañ wala njaay moo xam ne dal sa fii lëntal na ca ka moo lëntal dafa nëbb sikk ba ci kam jaay fii kalam jaay kon dagan na ca ba tey teg koo xam ne xaraam nañu boole ñoom ñaar dana tax dagan na waaye laa faasidiin nag waxuma nag njaay mu yàqu de déedéet ki jiitu woon la njaay njaay mu yàqu daganul nga indi mbokkam moo xam ne ñoom ñaar waruñu bokk benn bu mu sëy du dagan moo tax mu ne kon laa faasidiin waxuma njaay mu yàqu te kat la mu yafut faatagul nag njaay ma ci lan mooy ci xaraf moom bu xasee xaraf moom faat na faat na kon day dagan moom dégg nga de nee na waxee din ak mbërëg daganul de dafa gis mbërëg rek lu tax nga mën a takk rakkam ja walla magam ja daganut waxee dati subhatin ak li xam na mooy eddaab jaawale lu tax na kii dafa am ku jaawale soxnaam te dëgg moom muy laablu wala sox wala ku am soxna ba noppi ku am soxna am ko jaawale soxnaam te muy laablu waxtu muy laablu tax moom borom soxna fii dara mu takk rakk si wala magam ndax ki ko jaawale muy laablu danaan am nag moo tax murtat ah du daganal ku ñaareel ki ci alamu ko mutat daga nit daganut fekkee dafa nekkon jibe du mom nak, bu mom bu fi nga xamne du doon jibe gor la woon dagan na ndax seen diggante yàqu na bu murtatee rek jeex na bu murtatee rek jeex na bu nexe jëkkër ji tak rek ja ak ki jeex na pare fa di nga masala bi jeex na ndaw si sa jabar la ci misal murtad na rakkam ngi fi bu neexee dem takki ko jibar la ci jibar lay wax jébéer wala dëkk mu dagan mu takk rakk ja déedéet wala omra daganut bu siyaare ak nirale du dagan ak yu ngéñ ngéñ du tee moom lopp ñeenti weer day wax bi wa sibraayin ak laablu dañ koy lablu du tax mu dagan mukk nag labdu moo xam ci moom moo xam ne dañ ko këfoon dafa tey dafa teyoon mooy yàlla bu koy labdu wa xiyaarin ak njaayum tànn du daganal koo xam ne araam nañu boole bokk ñu ñaar benn bu mu sëy ak garanti ñetti fan ñetti fan ci bépp xew-xew nag du daganal mukk nag xaraamun boo bokk moom benn bu mu sëy du ko daganal wa iqdaami sunnatin ak liggéey loo ko xat dama liggéey du sàngam xat te ñëwaat moom téef du tax nga du dagan nga jël rakk ja wala ñaari xat wala ñetti batin du càggeen maye waaye nag li ma yattasiru dana mun nangu ba tey li ma yattasiru ah minhu ko xam ne mën na ko nangu ci moom ki ko may bu la neexee nangu ko ci moom kon du tax nga dag du dagan nga jël rakkam ak képp koo xam ne alam nañu bokk dégg ok kon wa in biyoon ba woon dina wa hibatin di man yaxtasiruha minhu ak may goo xam ne dégg nga nee na wa hibatin li man yaxtasiruha minhu ba lañ toll woon de ne lépp loo xam ne boo ko may bu la neex nangu ko ka nga maye bu mm. la neexee nangu ko mm. daganul ngay dem di jël keneen koo xam ne ñoom ñaar bokk wuñ bokk bu mu sëy daganut islam moo ko xaraamal mu ne wa im bi bañeen dootu kon ci njaay la sax wa im bi ci njaay la mm. jaay ko ñeel boppam jaay boppam lam lam lam mayoon comme xiir te mu nekkoon kooku jirim buñ ko dénkoon nag daganul bi xalaat fii sadaqatin nag alay wuti naag xam ne sarax la ndax yéen bi dafa wax ne képp koo xam ne dafa sarax di ko lekkaat mu mel ne ko wóotu di ko lekk yéen bi loolu wax du ko jëlaat moo tax mënu ko jëlaat mënu ko jëlaat moo tax kon daga nag mu dem boole ko koo xam ne bokkoon araamoon nañu bokk bu mu sëy xalaat sadaqatin alay da mel ni ko doomam ini dem làqim sarax ba moo tax doom ji doom ji dem jël ko indi set wa iqdaami sinniina ak liggéey loo ko ay xat yu bare bare ñu ba ñeenti at lu juróom daggan na kon boole ko nga xam ne araamoon na ñoom ñaar ñu bokk bu mu sëy wala ko demal gi sa liy dund liggéeyal ko ne wuqi fa def na ko taxawal na téye ko im wati ahumaa ndim ñoom ñaar la laal ngir lan li yu xarrima gën na xaraamal kenn ki ñoom ñaar la laal ah nañ ko téye mu xaraamal kenn ki xaraamal kenn ki léegi dañu xool nag lu xarima fi ab xaar saaniyata bu dee ku ñaareel ka la téye moom gën a bëgg ah kon istabra aha na ko laablu parce que kooku ñaareel ka indi problème bi ku njëkk moom dagan na waaye ki dafa indi ku njëkk bu noppi gannaaw mu jëlaat ko ñaareel te ñoom ñaar waruñ bokk benn jëkkër wala benn benn sang. léegi na ñu ne ko da nga araamal kenn ki mu ne moom ku ñaareel ki day araamal ku njëkk ki kon na laab bi ku ñaareel ki ndax bi muy ànd ak moom daganul kon na laab ku ñaareel ki wi naa xada bu takkee kenn ki fa tara moom jënd keneen ki fal ula ku njëkk la dégg dafa dafa dafa takk kenn ki jënd keneen ki fal ula bi naa xada góor moo takk kenn ñaar ñoo xam ne bool leen ci benn sëy dafa araam jënd keneen ka kon fal ula jabar ju njëkk ja islam d'accord di xaraamal keneen ki de ki mu mhm. nga xam ne sii naag moom waxaa wala mu takk ko ba de tala suuf si gannaaw bàyyi na ko bi waxtaan ci moom téef fokkal awwali comme bu njëkk ba rek bu jëlee ko ñaareel ka na ko laablu comme atte bu jëlee ku ñaareel ka na ko laablu nga awal fase fasem bat xaraam na ci moom xataa yoolu ja ba jaxasoo moom baalixun mukkalaf xadal xasafati tool ni bopp awraam ba dara mel hen te benn xaaye bu xam ne xaaye woon na ko maanaam bu muy séeg moom du du du ni ci wasin ndukk yor mbërëg bi daa neen walaa ndugu sorotun te biir da amul fii ci sëy ba ndaw si biir dugul de ah binti saarin te nekk jëkkër ju ñaareel ji doon góor fi nekk ay nekk sëy bu war nekk ay tappale sëy bu war welu ma xalawatin ak it na ndaw si xam ne wiitoon naa góor ci néeg ba soo jitin dañ wax bi de te gi mu nekk jabar faxa dong nag ñetti bu ci benn fasaati bu ci benn manqué daganut ci waxtu wu ndaw fi waxee ne da doon ne la yëgu mu ngi si tëdd góor baaxut ba dégg wax bi wala xas si yan dootu ko dafa nekk na koo xam ne kuñ moor la mu nekk taswiji xayri mus bihaatin ni kii takk koo xam ne jaaduwut ci moom lii mel ni ngir ngiñ daganal na ko ko borom dara ja tek ko ne jaadul ci mom ngir ngéñ dafa géejoon ne dafa géejoon ne da tak jabar ñetti wer yi wala ñenti wer yi wala bu ko deful nanga war na nanga war na ba de gox bi legi nak yalla dugal legi mu bëgg teñu mu nara teñu mu takko rek dina teñu bam ba jaxaso gis ndaw suñu fase fase ñetti yoon jëkkër ndaw su mën a am saas fase nañ ko ñetti yoon te ki giñ moom xam ne ne bu bu takkul jabar dana dana kafaara ndax day tëñu ndaw si moom jëkkër ji nga xam ne moo giñ bëggul ndaw sax ci mbindaan ci waxin bëgg ko sax ci mbindaan doon muy doon takkul jabar dina tëñu bu dem takk ndaw si te ndaw si di ko fase ñetti yoon te jëkkër ji fasal ko sa ñetti yoon mu ngi ni ngiic ndaw am jëkkër mu tagat ko te mënta mënta am ba tey yugo ba tey yóbboo mënta am ndax si ñaaw na ñaaw bo xam ne ñu ko bëgg bar wuñ <laughs> moom fasal na ndaw si te fi mu ngi ne jot ci ndaw si te ndaw si ñu ko bëgg bar wuñ waye ki dafa geñ te bu yéex bu yéex tak dina kafaara te wóor ko ndax si bëggul ko sax mbindaan fu mu ñàkk pexe takk ndaw si kon ndaw si bu ko takkee bu noppi ànd ak moom ci sàtt yi wax ni dagan na ko njëkk mu ñëw jëlaat ko <laughs> moo tax mu ne kon ka taswii ji xayri mus bihatin limin ngir ngéñ nag ngir ngéñ dégg nga wala fas yi di nag waxuma nag ci takk bu yàqu moom kooku ah in lam bu dem taxul ba doo gannaaw bi wax en sànni ci sëyu ñaareel xam am na sëy yoo xam ne bu fekkee donte dañoo yàqu bu jëkkër ji sëy moom ñaari yoon islam da koy considéré da koy wéyale dégg nga wax bi si dafa loolu asir